asalaamaaleykum mbokku internet yi rawatina Africa Global Express TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, si sa stage comme d'habitude ni may faral di ko nuyoo rek bu bëri jàmm ji borom reetaan bu neex bi macha allah euh, tey nag ñëw fii ci biir Pikine euh, fekk fi ne jigéen boo xam ne macha allah muy jigéen bu doon jàmbaar jigéen bi nga xam ne brave dañuy faral di wax naan ñaari takk ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo rek mooy takk sër macha allah femme may leen bëgg a présenter dama leen di bàyyi nag ngeen présenté boppam ndax tumu ni du teew ñu nataal. ok merci beaucoup Anta maa ngi lay nuyu di nuyu waa Africa Global Express mm-hmm. ah, di leen sant di leen këram mm-hmm. di leen dalal nag fii ci sama biir kër tey mm-hmm. maa ngi tudd madame la maire Fatou première adjointe au maire de la commune de Pikine Nord oh, présidente de toutes les femmes de la commune Euh, macha allah euh, dañoo nekk nag ci mois de mars te ku ne weeru mars ne weeru jigéen ñi mu nekk 8 mars bi nga xam ne macha allah képp kuy sargal ak yaa ngi préparé pour sargal sa yaay wala nga sargal sa sœur euh, tey nag comme ni mu ko waxee sànq ci biir néew bi mu nekk première adjointe maire maire Pikine Nord ñu lay laaj en tant que njiitu nga nekk jigéen est-ce que yomb na gérer nekk sa ginnaaw yëpp ay góor ay jigéen est-ce que yomb na. waaw merci beaucoup ma fille yomb na yombul. waaye loo diisee rek mu diis loo metti mu metti mais nag yéen moom mun la ko yenuloo rek du metti te Pikine Nord maa ngi yenu ndaw ñi yenu góor ñi yenu jigéen ñi famille bi laa la wax ñoom ñëpp sans distinction mais metti ndax dama ko partagé ak ñoom bu ma jàppee fii ñuy jàpp fii rek mu daal di oyof. Mm-hmm. mais xam nga des fois du ñàkk nag nga jiite lu mel ni entreprise wala société euh, ñu boot si ginnaaw dina am ñoo xam ne des fois dañuy daal yéen a yor béjjëni ginnaaw boo xam du ñu neex a boot. Mm-hmm. parce que li ngay bëgg naan aw leen fii duñ fa aw boo leen taxaw fii duñ fa taxaw est ce que mën nga mos nga dund loolu wala mosoo koo dund. non du ñàkk ndax troupeau lay doon rek ñuy dem. Mm-hmm. te du ñàkk ñu des ginnaaw mais yow mi leen jiite fexeel ba bu leen bàyyi del essayer rek di leen yóbbaale suñu bañee ngay naxante ñoom ba ñu ñëw ànd ak yow mais am na ñoo xam ne tamit mënoo leen a sàmm sàmm ba ñu dina des ginnaaw mais nag buñ la tardeel boo tolloo ci moment boobu defal la tuut bàyyi leen fa jéem a avancé ak ñi nga xam ne ñooñu ñoo bëgg a dem nga ànd ak ñoom dem. waaw ñi nga galgal. waaw mm-hmm. leen bàyyi ginnaaw. en tant que leader da ngay jéem ak ñoom waxtaan ak ñoom def le tour réew ñoom wàcce sa bopp comme ni njiit war a mel def na tout daal pour ñëw ñu rejoindre mais boo xoolee xool ne def nga tout sacrifié wu nga wax nga def nga ba sonn ñëwuñu buñ la tardeel ñooñu ñoom toujours noonu dañuy des da leen di bàyyi ci ginnaaw jéem a avancé ak ñu d'accord. Euh, macha allah dégg nañ sa wax en tant que jigéen tamit li ma lay wax ne dañoo nekk ci 8 mars nekk jigéen nekk yaay dafa métti rawatina nga nekk ci benn entreprise di fa liggéey bëgg a tamit famille bi ménage bi est-ce que loolu yomb na. yomb na yombul. ndax ñun bi ñuy dugg ci politique ak léegi ban ciy dem presque deux mille la bi nu ñëwee ba fekk fi tey ki nga xam ne moom mooy suñu leader moom monsieur le maire Amadou Diarra mu gagné mairie Pikine Nord moment boobu presque def na ay presque plus de vingt ans de ménage ma am ambition bi bi ma amee ambition bi ma fekk fi sama borom kër fekk fi sama yaay muy mère Saliou Ba nekkoon mm, jabar Pa Abou Touré ancienne maire ni nga xam ne ci Jara moo nekkoon troisième adjoint bi fi au niveau de la commune ci la ma gis na ma man dem sama doom mu ne maa mu ne ma dama bëgg ñu liggéey politique ndax ma dama la gis rek xam ne yow ku war a mën a politique ma lu jor boobu dama reetaan mm-hmm. ma xam ne ni ma jàppee woon sama kër jappé ko sama borom kër jappé ko sama njaboot bu mu politique lo est-ce do am fay ma reetaan daanaka waa bàyyil bu ma démé kër kër dina tagu sama borom kër sha allah bima ma wax ko ko mu ma ah bu dee sama yaay Saliou Bala de amul problème man nga dem ce jour la tambalé ñu ubbi fii groupement ci kon bi ñu def ma secrétaire général er Saliou ba jiite ko ak euh, tànku jësi fekk Amadou Diarra gagné na maire bi di samp ay groupement ñu am fi réseau des femmes depuis qu'il mort ci la tambalé nak di politique en 2002 ba tay ci may wax ak yow ma am ci and ci ak ki nga xamne moy sama leader moy ki nga xamne mo nek tay tey Nord moy ki nga xamne mo nek dans le département de Pikine te kenn du ko jaawale bo ba léegi ma andal mom ci politique ba tay ma don fi premier adjoint au maire dëgg foofu naa naa yem foofu waaw macha allah ba tey ci biir euh, li nga wax euh, ni ñu bëgg nañu xam tamit ak nan ngay dundee ak njaboot gi ci kër gi parce que tamit boo xëyee suba teel bëgg toppatoo sëñ bi bëgg a daw ca liggéey ba bëggoo tàdd ca bureau ba bëggoo jël ndaare macha allah ak la xam mm. bëgg tamit boo wàccee bëgg a surveiller xale yi seen éducation ak seen njàng mi nan nga dundee loolu. ah foofu moom yàlla mayoon na ma ma am ci chance lool parce que bu may dugg fekk na élevé naa samay njaboot yëpp tey boobu ñi nga xam ne tey ñoom laa mujjee am nii muy les jumelles boobu am na nañu deux ans ou trois ans ma bàyyi ko fii ci ma bàyyi leen fi te dama doon liggéey sama liggéey personnel di def sama commerce di def sama politique di gérer sama ménage parce que boobu xam naa ni man forger naa sama bopp ci loolu yàqalu ma dara ci kër gi. yàqal du ma dara ci sama commerce yàqal du ma dara ci sama politique mhm. bu ci nekk ak heuram la su ma nekkee ci kër gi sama liggéey kër dama koy def mhm. su ma nekkee ci sama liggéey commerce mhm. dama koy def te mu politique jotee dama ko ci boolewaat yàqalu ma woon dara ba tey yàlla may ma macha allah njaboot gi ñoo ngi ne ku ci nekk di ngay jàng bu école tëjee ma man woon ngay doon da nga doon def formation professionnelle ñoom ñëpp kenn continué wu ci mais ku ci nekk am nga formation boo xam ne am nga ko boo xam ne moom ngay exploité fi ñu toll nii kon daal yàlla dogal na kër gi sama borom kër maa ngi ci ànd ak moom ba léegi ba presque gis na ki ci mag moo ngi ne trente ans na maa ngi fii politique bi def naa ci vingt deux ans maa ngi fii njaboot ko aussi yàlla xëy na ndimbali suñu borom la ndax kenn mënul yàlla rekk a mën yàlla jàppale na ma ci daal ba ñëpp ñu ngi sama wet macha allah. Mm-hmm. Ah, tey jii tamit ñu gis ni tamit nga am fi doom bu jigéen tamit danaa la yóbbu fit parce que jamono ji bu ñuy wax cas de viol viol yi bu ñu nee viol ñu ni jigéen ñi la. Mm-hmm. boole di leen accuser di leen menacer. Mm-hmm. en tant que jigéen lan ngay euh, xelal ñi nga xam jot nañu leen a viol wala jot nañu leen a menacer. lan nga leen di waaw dans le viol moom. dafa nekk loo xam ne actualité la. mais d'habitude damay wax ni jigéen kum ne yow la rek yow la ndax danga ko fi fekk mooy sunu aada. donc buñ ci demee ba toll ci vraiment mu nekk sujet d'actualité man d'habitude du ma bëgg di wax ci loo xam ne dafa nekk ci yoon dañuy bàyyi rek justice faire def liggéeyam bu defee liggéeyam après ñu xool suite bi toujours foofu rek laay bëgg a ci viol bi mais ñi ñu violé aussi dama leen di ñaan ñoom tamit ñoom it ñu am gëm-gëm gëm seen bopp en tant que jigéen te xam ne viol ak ñàkk laa viol lépp teewul nga am ni nga bëgg parce que àdduna la daal nam ko fi fekk mais ñoom ñu ñu foyale nañu ànd ngëm ànd ak yàlla ñoom ñu gis ñu ñu la tamit ñu bañ leen ko di ko xoolee di leen di stigmatiser ba ñu xam ne bu ëllëgee leen ci gis seen bopp mm-hmm. jërëjëf macha allah euh, tey jii boo amee tey jii looy wax gouvernement bi di leen ñaax rawat na ministre de la femme euh, lan ngay leen ñaax loo xam ne mën nañ la ko jàppale ak loo xam ne mën na leen jëmale réew mi kanam mm-hmm. euh, par rapport ministère de la femme man Ndeye Saly Dieng Diop bi mu fi doo ko ñëw jël naa ko ci page am waxtaan ak moom ne ko jigéen nga jigéen ñëpp a fi nekk waaye bu ci ut obédience politique mu ñëw fii au niveau de l'stade Amadou kii Alassane Djigo maa représenté woon la maire en tant que femme ci invitation bi mais à ma plus grande surprise dama gis ni ñoom femme APR yi rek ñoom la ñu considéré mais les femmes de l'opposition ah man boog ci fi ma féete ci wàll bi ma féete waxtaan man def nañu tout déposé nañu ay projet mais réponse sax nañ ko am benn jour nañ ma ci yow yaay diw ma ne ah yaa déposé woon projet ma ne waaw mu ne ma waaw buñ la soxla waatee dinañ la woo mais ba tey woowuñu ma kay na nag li ma nekk ci mouvance présidentielle la waaye na xam ne moom mooy yaay ministre de la femme moom yor famille bi na xam ne jigéen ñëpp ay njabootam lanu na tàllal loxoom tàllal loxoom jigéen ñëpp jigéen ñi muy si ko mu tëddee njaaxaanaay boole ñëpp ñu doon benn ah, sa dernier mot sama moom mooy di sant honorable monsieur le maire Amadou Diarra mm-hmm. di sant faamu Pikine Nord yi mm-hmm. di sant sama borom kër mm-hmm. di sant njaboot gi yëpp yëpp yëpp mm-hmm. di leen ñaax ni nanu dem ci jàmm ak salaam dëkk bi jàmm moo fi xaj leneen xaju fi di wax ni tamit yéen Global Express TV maa ngi leen di sant mois de mars dafa nekk mois bu sacré ci man boo xam ne saa yi ma ci duggee damay am ay souvenir lu neex ak lu naqari parce que soo xoolee sa euh, mois de mars bi ci laa def sama mariage le 7 mars moo tax ma choisiral bis bi sama doom bu góor bi nga xam ne mooy marié le 7 ñu bokk date le 24 mars ma am ci ay jumelles ñooy samay caat le 30 mars ma am ci beneen doom bu góor sama yaay wàññeeku le 14 mars je suis le 13 mars kon mois de mars sama mois la mm-hmm. kon bu ngeen fi ñëwee dima interviewé mm-hmm. dama ko rendre hommage sama défunte ma di ko ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko gënal fu mu jóge te njaboot gi ak njabootu jullit yëpp te sa barke bi maa ngi leen di sant di leen gërëm voilà mbokk yeeg xarit yi lii lañ leen indi woon tey ci Africa Global Express TV waxtaanee lépp lu jëm ci xam ne jëm na ci wàllum jigéen ndax dañoo nekk ci mois de mars nag lu waaye di waxte waxoo lu jëm ci 8 mars daanaka waxoo dara xanaa di leen jox di daje ba beneen yoon bu neexee suñu borom.